assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jamia khalqik annaka anta allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka alshukr raditu billahi rabban wa bilislami diinan wa bimuhammadin sallallahu alayhi wa sallama rasula hasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim mbokk yi safoo la RTS ñu ngi am mbégte di janook yéen comme niñ ko baaxoo di def fajar wu nekk ci seen jotaayu biddeewu xeet wi di leen ñaanal li ñuy ñaanal sunu bopp yal nañu yàlla subhaanahu wa taala defalal ixlaas defalal ñu qabul defalal ñu tawfiq ubbil ñu li nga xamante ne moom mooy buntu wërsëg yi ubbil leen ko ñu ànd ak yéen taxaw ci buntu kër kilifay diina yëpp ziyaar leen sàkku ci ñoom ñaan ñaanal leen ñoom tamit borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla sàmm leen yal yàlla wottu leen yal na yàlla defal leen xifd ak riaaya yal yàlla nangul leen coono gi ñuy coono ci diiney borom bi subhaanahu wa taala yàlla may leen ixlaas mu dik sellal ak qabul muy nangu jëf gi nga xamante ne moom la ñuy jëfal borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi ziyaar di nuyu kilifay réew mi ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla sàmm leen wott leen yal na leen yàlla booleeg bitaana saaliha goo xamante ne di ay àndandoo yu baax yoo xam ne dañ leen di ñameloo dëgg di leen gunge ci dëgg di leen ci xelal li nga xamante ne moom mooy dëgg yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla subhaanahu wa leen ba lépp nekk njëriñuk réew mi di réewum Sénégal noonee lañuy ñuy ziyaar kilifay kër gi la RTS fu kilifa mun a nekk ci biir kër gi tàmbale ko ki nga xamante ne mooy directeur général yal na leen yàlla subhanahu wa taala sàmm yal na leen yàlla wott yal na leen yàlla aar fa ñu nisara yóbbu kër gi lépp nekk njëriñu askan wi yal na leen ci yàlla subhanahu wa taala defal ndam niki noonu la ziyaar di nuyu di ñaanal képp koo xamante ne yaa di agent ci biir kër gi ak ci service boo munti nekk yal na la yàlla subhaanahu wa taala kattanal ba liggéey biñ la dénk nga mun ko def ci anam bu mucc ayib yal na yàlla barkelal la sa wërsëg yàlla barkelal la sa njaboot barkelal la sa xëy ak sa gontu noonee lañuy ñuy ziyaar di ñaanal mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpitaux yi ziyaar médecin yi nga xamante ne ak docteur yi leen di taxaw yal na leen yàlla subhaanahu wa taala kattanal ña nga xamante ne ñoo di malaat tëdd ca lal ya yal na yàlla fëgg seeni bopp delloo leen li nga xamante ne moom mooy aafiya allahu huwa shaafi moom mooy kii saafara di laate yal na leen yàlla defaral shifaan ajilan laa yugaadiru saqama saafara woo xamante ne du bàyyi benn jàngoro ci biir yaram bi ñaanal sunu mbokk yi nga xamante ne ñoom la tënk seenug dem ak seen dikk ñu nekk ci biir bërëbuk yarukaay yi nekk ci prison yi yal na leen yàlla subhaanahu wa taala génnee ci tolof tolof ak xat-xat yi nga xamante ne moom lañ nekk ba ñu delluwaat si seen i njaboot yal na leen yàlla teggil seeni tiis yàlla leen yàlla subhaanahu wa taala delloo si waat ci njaboot gi ba ñu mën a ànd ñun ñëpp tabax suñu réew mii di Sénégal ngir ne Sénégal doomam yëpp la soxla noonee la ñaanal ñii xëy ñi nga xamante ni ñoom ñooy dabu seeni wërsëg yal na leen yàlla subhaanahu wa taala defal tawfiq mbokk yi Usmaan ibnu Affanin radiallahu anhu nekk goro yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niñ ko gisee woon ci jotaay yi weesu doonoon ku tab doonoon tamit koo xamante ne ku bëri kersel koo xam ne ni ko sunu yaay Aïcha radiyallahu anha nettalee bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom sang bi rasulullahi sallallahu alayhi dafa am kersa ci Ousmane ngir ne malaaka yi sax dañoo am kersa ci Ousmane mbokk yi dafa amoon kersa ci borom bi subhanahu wa taala est-ce que xamoon ngeen ne Ousmane bu duggaan ci biir néegam comme ni ko al di nettali ne Ousmane yeggoon na ci bëri kersa ba duggaan ci biir néegam day am kersawu pour summeeku nga xam ne kenn dañoo tëj bunt bi da daan am kersa pour summeeku def yaramu nen ngir bëri gu mu bëri woon kersa ak kersa gu mu amoon ci borom bi subhanahu wa taala et loolu jullit bu nekk war na koo bàyyi xel am kersa ci yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg da ngay gis doomi aadama yi mën nañ am kersa ci nit ñi mais duñu am kersa ci borom bi subhaanahu wa taala am kersa ci yàlla mooy fexeel ba lu neexul yàlla subhaanahu wa taala bu ko yàlla subhaanahu wa gis si yow comme ni ngay amee kersa si sa wayjur ba nga xamante ne am na mbir yoo xamante ne boo koy def buggoo nit koo jox cër ah, mu di ko gis wala buggoo nit ku la fonk ngay tuuti ci kanamam ba boo sañoon mbir moomee boo koy def nit koo kee du ko fekkee am kerse ci yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi moo dine ne bàyyi xel borom bi subhaanahu wa taala ba loolee nga xamante ne moom ngay am kerse ci nit ki jiital ci borom bi subhaanahu wa taala bu ko defee di nga mucc mbaax dina doon loo xamante ne lu lay yomb la Uthman ibnu Affan radiyallahu anhu mbokk yi li tax mu bokk ci biddéew yi ni biddéew nekkee ca kaw nit di ko séen di niitoo ci moom noonu la sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doonoon ay biddéew ñuy niitu ci ñuy niitu ci ñoom Usmaan ibnu Affaanin mbokk yi ak mbaax mii mu dajale yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp leen bis dafa ñëw ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko yow dañ lay faat bi maanaa sa dina am nit ku lay rey mais yàlla dina la fay li nga xamante ne moom mooy aljana loole na mu na na mu demee woon moo di ne abu hurayrata radiallahu anhu moom moo ñuy nettali di wax ne bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yéegoon ca kaw montagne Uhud xam ngeen ne montagne Uhud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne Uhudun jabalun yuhibbuna wanu nuhibbu Uhud montagne la woo xamante ne daf ñoo bëgg et ñun dañ ko bëgg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan dem ca montagne yoo yéeg ci kaw li nga xamante ne moom mooy montagne bi Abu Hurayra di nettali ne ab bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yéeg ca kaw montagne Uhud ànd ak ki nga xamante ne mooy xaritam wa di Abu Bakrin Siddiq ak Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ak Uthman ak Ali ak Talha ak Zubair montagne bi daal di yëngatu fa taxarakat as-saxra fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ihda fa maa alayka illa nabiyun aw siddiqun aw shahidun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dalal muy wax ak doj wi di wax ak montagne bi naan ko dalal ngir ne ñi ca nekk ci kaw ñi la ñi nekk ci sa kaw génnuñu ñett yii e imma aw yonent aw siddiq aw shahid muy martyr et effectivement yonent bi la woon ak Aboubacar wa huwa siddiq keneen ku dul yonent bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci kaw montagne yi ñoom ñëpp dañ leen a dañu ay shuhada lañ dañoo faat dañ leen faat li nga xamante ne moom mooy seen bakken mu rot ci toolu borom bi subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ab bis abu moussa al ashari dafay nettali ne yonent bi sallallahu alayhi dafa dugg benn bis ci ab tool mu daal di wax sant ma ne naa moon te li nga xamante ne moom mooy garde mu ne am benn waay daa di ñëw daa di yëglu di demand permission pour yonent bi sallallahu alayhi wa may ko mu dugg ma daa di koy wax ne yonent bi diw ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko wax ko mu yegg si te nga bégal ne ko yàlla dina ko yóbbu aljana nee na ba ma ubbee buntu bi ma gis ne Abu Bakar la nee ma toogaat ab tuut am ku ñëw fëgg ci ginnaaw bunt bi di ñaan permission pour dugg yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ma wax yonent bi de ah, am na kuy ñaan pour dugg yonent bi ne ma ubbil ko nga bàyyi ko mu dugg te nga bégalee ko xamal ko ne ko moom yàlla dina ko yóbbu aljana abu musa al ashari nee na ma ubbi buntu bi fekk muy omar ibn alxataabi radiallahu anhu nee na astuut lañ toogaat beneen waay ñëw fëgg ci ginnaaw buntu bi ma daa di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama am na ku ñëw di fëgg di ñaan permission pour dugg nee na yonent bi noppi ab diir daa may wax ne wax ko mu yegsi te nga bégale ko li nga xamante ne moom mooy aljana ci kaw metit woo xamante ne aw natt goo xamante ne da koy dal Abu Moussa ne ma daa ubbi buntu bi fekk mu nekk Uthman ibnu Affan radiyallahu anhu dinañ ci ñëw ci bégal googu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégalee aljana ak nattu googee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne moom moo koy dab ci kaw li nga xamante ni moom mooy euh, bégal gi ko yàlla subhanahu wa taala bégalee li nga xamante ne moom mooy aljana mbokk yi junju naa ko ci benn ci jotaay yi weesu kene Uthman ibn Affan radiyallahu anhu malgré lii mu am yëpp fekk mu ngi dund li mu am yëpp fekk mu ngi dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ay circonstances wax ne ku def nangam yàlla fay la aljana Ousmane def ko yamul foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yàlla dina la yóbbu aljana ginnaaw nattu goo xamante ne da lay natt toutes ces choses bu doon kenn ci ñun moo ko am boo moytul commencé na ferankulaayi di xoqaliku jàpp ne moom macha allah aljana la du am sax dafay jàpp ne ku ko gis dem aljana ñun fii ngay gis koo xamante ne dafay dafay dafay mun na am sax rawula ci wàlluk jaamu yàlla mais am na ak dëgër fit goo xamante ni dafay wax ne ku ma gis dem aljana wala ku gis ku ma gis dem aljana allahu akbar ànd ak lii yëpp Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ku mënoon jaamu yàlla la subhanahu wa dégg gi mu dégg mbir yi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax daf ko yokkoon ci wàlluk jaamuk yàlla subhanahu wa taala moo tax ku la gën a franchir li nga xamante ne moom mooy yoonu ku wilaaya moo la gën a ñeme jaamu yàlla subhanahu wa taala ngir ne ak ku wilaaya kenn munu faa yegg lu dul ne danga jaamu yàlla subhanahu wa taala ba jeex ci wàlluk jaamu ga ku la ëpp lu muy tudd yàlla subhanahu wa taala kula ëpp lu muy sujootal yàlla subhaanahu wa taala ku la ëpp lu muy saytu lu muy lekk ndax lew na wala lewul kookee moo la ëppi maqaama ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala même bu fekkente ne nit ñi gis jiiñu ñu ko di la ko jiiñ yow moo tax ku la gën a mën a jaamu yàlla subhaanahu wa taala moola ëppi daraja ci ki nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla est-ce que xam ngeen ne ci laaya bi ñuy jàng ci biir alquran yàlla subhaanahu wa taala di ci wax nit koo xamante ne dafay fanaanee guddi taxaw di naafila di jaamu yàlla ngir yaakaar yërmaanek yàlla subhaanahu wa taala moytandiku mbugaluk borom bi subhaanahu wa taala waa joojee dem ba yàlla jëmmal ko ci biir alquran abdallah bne omar radiallahu anhuma dafay wax ne kookee doonul kenn kudul Ousmane mooy laaya bi yàlla subhaanahu wa taala di wax ci suratu zumar verset li nga xamante ne moom mooy neuf borom bi subhaanahu wa taala di wax ne amman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan wa qaa'ima yaxdaru alaxirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladina yaclamuuna walladina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulul albaab abdallah ibn omar dafay wax ne laaya bi mu ngi wàcc ci usmaan ibn affan laaya bi lan lay wax mbokk yi laaya bi dafay ñëw di jëmmal ne usmaan ibn affanin radiallahu anhu doon jaamoo borom bi subhanahu wa taala malgré garantie yi mu am yëpp ci wàlluk aljana yëpp Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu dafa nekkoon ku daan jaamu borom bi subhanahu wa taala ba yàlla mentionné ko ci biir alquran amman huwa qaanitun ana al-layli saajidan wa qaa'iman koo xamante ne guddeem yëpp dafay taxaw di naafila di sujood di yam yaakaar yërmaaneeg borom bi di ragal alaaxira kii mooy Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu dinañ ñëw ci jotaay yi di ñëw Ousmane ni mu bàyyi woon xel borom bi ragal ko. di moytu yàlla subhanahu wa taala way leen di continuer ak programme la RTS yeneen yu am solo mu ngi ñëw ci ginnaaw man maa ngi leen di jox daje ci beneen jotaay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa